rawatina daaru alimul xabiir ñoo koy yëkkati ci kanamu sëriñ bi bu ñu àggalee jox sëriñ yuusu mu am kàddu yi nga xam ne mooy kàddu daaray isbu tarixiya yu muy jottali ci cheikh mouhamadou muntaxa mbàkke kon sëñ Alioune Gueye bismillah sëñ abdoulahat ni ñu ubbil أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فذكر إن فإن الذكرى تنفع المؤمنين فذكر وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته dañoo bëgg a fàttaliku te bëgg a soññ ci kàddu yi Cheikh Mouhamadou Nil Mountakha Mbacké di kàddu yi soññee ak laa biire ginnaaw bu nu teewlee aaya bii nga xam ne sunu borom da cee digle nu ragal yàlla te wut wasiila tey bay ci toolam bi ngir naam ak texe ci suratul maida أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون صدق الله العظيم nanu maa see teewlu kàddu yi Seex Muhammadinil Muntaqa Mbàkke jukkee ci waxtaanu korite ama bam tashin di atum junni ak ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak ñaar ci gàddaay gi dëppook 2021 ginnaaw ba mu jotlee am nuyoom dafa wax ni noo ngi sant bu baax a baax a baax di soññ sama bopp di leen gën a soññ li ci des nag mooy ni ma ko daa junje jéem a xam sëriñ bi te jéem koo dund sëriñ bi mënunu koo xam ci lu dul nag am xas du wajillaahi sunu lépp nu jëmale ko ci yàlla xas du wajillaahi nag mënta am ci lu dul dëddu àdduna dëddu àdduna nag bu ñu ko dee wax du ñàkk lekk du ñàkk naan du ñàkk denc du ñàkk dëkk dëddu àdduna la ca gën a gàtt da ngay jublu yàlla te dara yi àdduna dootu la saf bu loolu amee nga daldi di nag nekkal sëriñ bi yittewoo ko di jéem a xam aw doxinam sëriñ bi mënuñu koo liggéeyal lu kawe am xas du wajhillaahi te def ko muy suñu yitte di ko jéem a xam di jàng aw doxinam jërëjëf sëñ Mouhamadinil Muntaqa Mbàkke yàlla na fi yàgg tëwél képp ku dégg kàddoom yi tedd yii gis nii mu nuy wommatee ñun taalibe yi ak nii mu nuy laay biiree di xam ne melow wii ca dëgg-dëgg moo dëppoog la sëriñ bi wax ca turandoom wu tedd wa نصيح بلا غش عليم معلم شقي بلا من كلاما يلين نصيح بلا غش عليم معلم شقي بلا من كلاما يلين نجيب عجيب ناسب وهو ناسب هو الآمر الناهي الذي الخير يدمن نجيب عجيب ناسب وهو ناسك هو الآمر الناهي الذي الخير يدمن ويدي كلا بره نجوب la sell yaa ja xam du ñu xamal di tab bu dul ñax di tab bu dul ñax kàddam lool te rafet la ko moo di tànneef bi yéeme lool te nangoo sonn ci diine di jaamkatu yàlla bu mag di digle dug baax di tere lu bon te sax dagg ci jëfi yiw jërëjëf Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké yàlla na fi yàgg lool te ak wér amiin jërëjëf muy kaddu yi nga xam ne